waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateur yu 2STV yi ne ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ñu mën a ne del soit nañu yéen seen jotaayu daara ji ñu tudde tafsirul quran seen mbokk daara Abdullahi Gaye di leen ko présenté di nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam waaye di ziyaaro di baalu xaq ñëpp dibal baal ñëpp xaq dellu ñaanati suñu boroom subhanahu wa taala mu def ñu dëggi-dëggi jullit waaye dellu rek di ko ñaan mu defal ñu xéewalu saa yu ñu koy wiji ñu yóbbaale suñu iman ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni jotaay tafsir bi ñu mujj am jeexalaloon nañ leen seen saar bu am solo boobu ñu doon wax suratu ali kon su fekkente ni dañoo doore ni tafsir nañu fatihatul kitab ba mu jeex teg ci suuratu baqara teg ci ali imran tey ñu ngi ci suñu ñeenteelu saar ci alquranul karim di suratul nisa di saar bi nga xamante ni mooy saar bi wax ci wàllu jigéen ñi maanaam bari na lu mu wax ci mbiri jigéen ñi du jëmmi saar bi yépp fa ngay doore ba fa muy jeexee léppay wax ci jigéen waaye bari na daal lu ñëw ci mbiri jigéen ñi te yàlla indi ko ci saar bi ñenn ñi sax nañ looloo tax sax ñu far féetale ko suuratu nisaa muy saaru jigéen ñi loolu nag doon sag ci jigéen ñi doon ndam lu am solo lu leen seen borom defal jagleel leen saar te doo wër ci alquran ba mu jeex fenn fu ñu lay waxee ni bii mooy suuratu rijaali di saaru góor ñi ko wax sax nit mu ni la waaw waaye am na saar yu ñu tuddee góor waaye it am na saar yu ñu tudde jigéen ndax suuratu Maryam mu ngi ci alquran kon lii yàlla moo ko defal jigéen ñi jël saar bu mag nga xam ne toll na ci ay aaya aayay saar bi toll na ci téeméeri aaya yu teg juróom-ñaar fukki aaya ak juróom benn maanaam 176 verset mooy suuratu bii di suuratu nisa kon lu am solo la mbokk saar la boo xamante ni sayyidatna Aïcha radiallahu anha dafa wax ni saar bi amu ci lenn lu wàcc lu dul ni booba mu nga nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ce qui veut dire que ni saar bii saar madaniya la ci saar yi ñuy askanale madina ci la bokk boo déggee am saar yoo xamante ni daf ci bari lu wàcc makka am saar yoo xam ni lépp makka la sa wàcc am saar yoo xam ni lépp madina la ñuy wàcc saar bii daal sayyidatna Aïcha xam na ni bi ñu koy jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam booba yonent bi nga ca madinatul munawwara te moom na léppi saar bi fekk na bi muy wàcc mu ngi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon suuratu nisaa madaniya la di saar bu am solo mbokk yi xam naa ne dinañu njalbeen ak yéen comme ni ñu leen ko baaxee di defar rek defal leen lu ñuy wax bay na yedda suura présenté leen saar bi ngeen war a jël muy suuratu nisaa axe yi nekk ci saar bi ak yu am solo yi nga xamante ni war nañ ko bàyyi xel def ci taxaw seetlu ci saar bi yépp incha allahu tey loolu lañ leen di defal présentation surat bi su fekkente ni temps bi des na ñu door tafsir bi su desul suñu fi dajewaatee incha allahu ci ndimbal suñu borom ñu indil leen njalbeenu saar bi waaye ala kullin tey moom li ëpp solo ci saar bi dinañ leen ko indil présenter leen ko pour ku ne xam booy suivre saar bi di suratu nisa lépp lu ñu yegg di nga ni lii waxoon nañ ñu ko ca ndoortele ni lii kat am na ci biir saar bi daanu nag dajul suuf xëy na mënuñu indil léppi saar bi ndax temps bi du ko maye waaye dina bari daal lu ñu leen ci wax mu ni benn saar la boo xamante ni ci saar yu gudd yi wàcc ca Madina ci la bokk ci saaru madaniye yi si la bokk moom suuratu nisa mu ni saar la boo xam ni fees na dell nag ak i attey sharia ay législation daf ci bari xam nga li ñi nga xam ne moom lañu ñu miin ci saar yi wàcc Madina mooy dafa bari lu muy indi ay atte saari màkka yi li ñu aadawoo di ca miin mooy aqida pas-pas lay defar ndax boobu la diine ji di soog di door ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ci stratégie bi mu tëral ak pédagogie bi nga xam ne suñu borom kenn jegewu ko ci xam na ni kuy soog a dugg ci lislaam nga encore bul fi takk lu ëpp li ay ci ay soxna deel woor ak deel lii deelee te moom duggagul xamagul mbir mi bu diisee ca moom day daw boo gisee ci lislaam ki dugg ci lislaam ñu leen di ñu wax ni la sa azaka boo ko génnee wal muallafatu qulub mbokk ci ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci lislaam ñu bëgg leen a xemmem loo diine jii di lislaam nga leen di defali ay cadeau ak i neexal yooyu dina tax ñu xemmem lislaam ji waaye dugg rek mettit bi commencé tartar yi commencé mën na leen a découragé loo moo tax fi yàlla pas-pas yi la doon defar ba mu dëgër mu soog a indi atte yi ca a munawwar kon saar bii bari na lool lu muy indi ay atte ndax ci saar yi ma yi la nee na dina indi ay mbiri biir kër waaye biti kërit dina ko indi ci jullit yi maanaam dina wax ay mbir yoo xamante ni ci biir famille bi la ak ci biir kër gi ak ci biir jullit yi ak lu nekk ci biti jullit yi saar bi dina ko indi incha allah lu ñu jublu ci loolu mooy saar bi dina indi ci wàllu législation lu baree baree baree bari ci ay leeral saar bi dina ko indi saar bi dina leeral ci mbir yu am solo ci lislaam maanaam mbiri jigéen saar bi dina ci indi lu bari mbiri kër sar bi dina ci indi lu bari mbiri famille saar bi dina ci indi lu bari mbiri état sar bi dina ci indi lu bari waaye société bi aussi saar bi dina ci indi lu bari kon juróomi mbir yi nañu bàyyi xel ni saar bi dina ci wax dina wax ci mbiri jigéen ñi dina wax ci mbiri kër nu ñu ko war a doxale dina wax ci famille dina wax ci état waaye dina wax ci société waaye nag li ëpp ci attey saar bii daal nañ yëg ni bari na lool lu muy wax ci mbiri jigéen ñi ba tax na sax ñu ni looloo tax ñu tuddee ko suuratu nisaa di saaru jigéen ñi saar bi dina wax lu bari mbokk yi ci àq yi nga xamante ni jigéen am na ko waaye àq yi nga xam ni jirim am na ko ce qui veut dire que ni saar bi dina wax ci wàllu jigéen waaye dina wax ci wàllu jir jirim waaye nag spécialement jirim yu jigéen ñi ñi nga xam ne seeni wayjur génn nañu àdduna ñu góor bàyyi leen fi ñuy ay jigéen nun leen war a yore ak bu ñu nekkee ci seen néegu tuteurs yi ñi nga xam ni ñoo leen jël en charge ñu nekk seen responsabilité yàlla dina am ay dénkaane yu mu def ñooñu ndax lan dafa bari lool ku sànku yowmal qiyam ku dem safara te dara dugalu la fa lu dul jirim boo yor te respecté woo ko boo gisee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni képp koo xam ne yor nga jirim yar ko yar ba rafet yàgg man ca àjjana ba yonent bi waxee loolu dafa ni nii mbokk yi ñaari baaraam ñu tedd yi sallallahu alayhi wa sallam nee na comme ñaari baaraam yi ni ñu jege yow nee na noonu ngay nekk ak man ca biir àjjana allahu akbar loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci kaafilul yatim ki nga xam ne dafa yar jirim waaye yar ko namu ko war a yare mbokk yi dafa am solo moo wax ni yar jirim danger ngi ci waaye buntu xéewal a ngi ci parce que nag bu ñu waxtaanee te ñeme dëgg gi foo fekk jirim boo jëlee boo doon def pourcentage yu réussite u éducation jirim daanaka quatre-vingt pour cent yépp échec lay doon li ko waral ci sama taxaw seetlu ak sama jàngat mbokk yi mooy nag loo xam ne sama gëstu la nit mën na amit nag xalaat bu gën a xóot bii may wax waaye ala kulli man taxaw seetlu bi ma ci def mooy ñaari mbir dina jur lool tax éducation bi ñu war a defal jirim du yomb mooy kii da koy yor te du ko jàppee comme doomam li ko waral mooy yor nga ko yor say doom di ko gënaat la ay ak say doom di toppatoo say doom di toppatoo seen éducation di toppatoo seenum njàng di toppatoo seen seen nekkin seen col seen lekk seen lépp jëriñ bi nag nekk ak yow ci kër gi xoole woo ko bët bi nga xoole sa doom fonke woo ko ni nga fonke sa doom loolu day mujj indi ci moom complex day dem ba mel ni ku am benn complex bu dox ci digganteem ak ñi lekk sax da nga ciy yóbbu fitam ba bari na loo gis xale waan ci kër su màggee boo sàgganee mu doon xale buy jël li ko waral mooy yar nañ ko yarin boo xamante ni privé nañ ko lu baree baree bari ci kër gi yamale nañ ko ci kër gi te kat dañ ko fa waroon a yaatal lekk dañ ko fay daanaka dañ koy ravitailler lu yem ci lekk par rapport ak ñi dikk ci kër gi fit wa day dem yenn saa yi mu fekk xaalis bu ñu teg mu fukk ko jël yenn saa yi mu fekk ñam wu ñu teg mu lekk léegi ci añ bi ba jóg wane ni suur na nga dem wëlbatiku gis ko muy dem ca waañ wa di seet décides ya fa nekk ak yooye li ko waral mooy fit wi moo àndul ak moom kon am na ñoo xam ne li tax mënuñu réussir yar bi ñuy yar jirim mooy dañu koy yamalewul ak seen doom benn ñaareel bi kii aussi am na problème ak jirim bi waaye moom it li ko indil mooy ñàkk ko yamale ak doomam waaye ci beneen fànn bu wuti bi kii def mooy lan yor jirim bëgg di sóor doomu aadama yi ci biti boo ko yoree jàpp ni comme ku yor sa doom nga yor bu sa doom defee lu jaaduwul da koy corriger kon jirim bi nga yorit bu defee lu jaaduwul corriger ko loolu moo am solo waaye nekk fi naan moom kat baay bi dundul jirim la soo fi nekkee boo ko fi dóoree waa koñ bi mbamba la ku ne naan lii loolu bul ko toppatoo li am solo mooy na nga kit ak sa conscience yow yaay ki am solo na la leer ni yow lii nga koy def sa doom ji nga jurit bu defee lii nii nga koy def nii nga koy defalit loolu ngay defal sa doom bul ci indi mukk seet wuute dem ba exemple bu dara amee sax nga ne naa ko xañ samay doom jox ko jirim bi injustice yaa ngi koy créé ko ni kee di defee conscience contraire bi bu ak xéewal amee mu jox ay doomam xañ jirim bi yow it bu fekkente ni bu mbir amee da nga naan naa xañ samay doom jox ko jirim bi boo defee ne yaa ngi koy teg ci yoon tegoo ko ci yoon yaa ngi indi injustice jàppal ni jirim bi tuddatul jirim jàppe ko comme sa doom dugal ko ci fi ngay dugal say doom xoole ko ni ngay xoole say doom loo xañ say doom xañ ko ko loo jox say doom it ci say moyens jox ko ko mais bul jàpp ni boo defee lii ñu ne lii même booy liggéeyloo sa doom di nga gis koo xamante ni dina ne ci këram tàggat ay doomam yar leen ci liggéey bu baax waaye yor jiinam doo ko nangoo liggéeyloo déet wóorul xam nga koñ bi waxkat yi ci koñ bi boo fi nekkee nii mën nga ko fee baleloo mën nga ko fee raxasloo ñu ñëw naan mu ngay jàpp doomu jàmbur jël lii bul jàpp loolu ñoom ñooñu kenn dénku leen xale bi yow mi ñu ko dénk yaa ci war a assumer say responsabilité ba mu mat sëkk mbokk yi lii jàpp naa ni bokk na ci ñaari mbir yi ñu war a def taxaw seetlu bu baax ci nit ñi yor jirim yi nan leen nan leen war a yor saar bi nag dina ci dikk incha allah bu ak ay recommandations yu suñu borom joxe dina indi ak yi nga xamante ni ñoom am nañ ko ci wàllu miraas muy jigéen muy jirim kumu ci wàllu miraas saar bi dina ci ñëw bu baax wàllu fàggu wàllu mariage saar bi dina ci dikk bu baax wuute ak ni nga xamante ni moom la ko ceddo yi daan defee lu juuti lislaam saar bi dina wax nan la ñuy yore jigéen ak ci wàllu sëy wàllu miraas lu ci jigéen di am ak lu mu ca dul am loolu lépp saar bi dina ko indi saar bi dina indi it ci waxi jigéen it wax teraanga ji ñu war a defal jigéen jigéen ni ñu ko war a sàmmee ni ñu ko war a fonkee ni ñu ko war a joxe cër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax naan ma akramahunna illa karimun waaye wa ma ahanahunna illa laim nee na jigéen ku tedd rek moo koy teral waaye nee na baadoo la mooy toroxal jigéen kon l'islam dafa fonk jigéen saar bi dina la ci indil wax la àq yi mu am ci wàllu miraas àq li mu am ci wàllu can muy dot bi ñu koy jox ak àq bi mu am ci ni ñu ko war a yore yii yëpp saar bii dina la ci leeralal lu bare bari bare saar bii dina la indil ci wàllu miraas mbokk yi te sewin ba gis nga miraas yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni miraas doyuma ci sama borom sax ba moom moo ko séddaleel boppam incha allah bis buñ ci yeggee di ngeen xam ni yàlla fonk la te lu mu séddale ba mu leer la bu lëjee ñun ñoo ko lëjal waaye yàlla leeralal na ko nañ ba mu leer su ñu yeggee ci aay yi wax ci wàllu miraas loolu dina leer ci suñu bopp kon na mu gën a sewe ak yemoo bi lan la góor war a am lan la jigéen war a am baay lu mu war a am soxna lu mu war a am jëkkër lu mu war a am yaay lum mu war a am frère lu mu war a am bu dee dina am keneen ak ku war a am cër ci miraas bi ak ku ci amul dina la wax dina la wax mawaadiul irs ñun nit ñii moom mënuñoo am ci miraas bi dina la wax it kenn ku ne nu mu ci amee yaay lan la war a am bu ay doom amee lan la yaay war a am bu doom amul lu yaay war a am bu frère amee bu freer amul papa lu mu war am lépp miraas jigéen lan la ci am saar bii dina la ko leeralal ba mu leem nañ ci na mu gën a sewe ci na mu gën a leere mbokk yi incha allahu saa yu ñu ci aayay miraas yi dinañ ko leer nee na it saar bi dina wax ci jigéen ñi araam ci góor pour ñu jël leen soxna ñii askan goo bokk ak ñoom tax na mënuñoo dagan ci yow ñii nampandoo goo nampandoog ñoom tax na mënuñu dagan ci yow ñii gorom loo boo gorom la ak ñoom tax na mënuñoo dagan ci yow loolu lépp saar bi dina la ko wax ñan ñoo la araam ndax deret ñan ñoo la araam ndax allaitement ñan ñoo la araam ndax gorom la mu ngeen seq ci wàllu sëy saar bi dina ko leeral incha allah saar bi mbokk yi dina leeral bu baax organiser li nga xamante ni mooy relation bi dox entre jëkkër ak jabar leeral bu baax a baax relation ba bañ bañ ko yemale ci relation boo xamante ni ci wàllu yaram la rek kii kat sama soxna la li ma intéressé ci moom li intéressé ci moom moo ñuy sëy fu ñu toll di am ay rapport sexuel ñu baal ñu expression bi waaye ñu bañ koo yemale foofu am na yeneen ëpp solo ci relation bi dox ci diggante boroom kër ak soxnaam incha allahu saar bi dina ko leeral bu baax a baax a baax wax maandute gi war a am yamale gi nga xamante ni moo war a am ak lépp lu aju ci loolu saar bi dina ko wax wane it ni bu baax ni jigéen li ñu koy jox muy can nañu xam ne du njëkk du loo jënde déedéet waaye cadeau la bañ nañ ba koy wax may gu njëkk may gu njëkk lañ koy wax mu koy wax premier cadeau loolu dalay wan ni teraanga la yooyu defar jigéen waaye mënoo koo jënd il faut que saa soit clair ñu jox la doomu jàmbur ñaari fan ñett nga ko wax man li ma def ci yow ak dama damaa dépensé ci yow ba bëgg a dee man kenn lu ma yaakaar yab ma loolu nañ ko delloo fa mu jóge bis bu jot ñu ngi yaakaar suñu borom te bis bu jot ñu yab ko doxalin doxalin boo wane ne dañu yab suñu borom ñun nag kenn yaakaaru fi kenn ñëpp seen borom la ñu yaakaar kenn kenn warul yor jigéen ñaari fan ñett nga ko li ma def ci yow ak war nga maa moytoog war nga maa lii di ko menacé yëgal ne li nga def ci moom du du du loo ko jënde waaye kado la cadeau la il faut que ça soit clair que ni yow cadeau nga jox ndaw si li lay wan ni la mënoo koo jënd mooy somme bi nga joxe ba ñu jox la faatu mii ci kër gi surtout bu dee ab ñangee na ko faalin nga xam ne ñoom amuñu solo la nga joxe ba ñu jox la ñooñu yëgal ni soo ko multiplier woon par mille joxe ko ci frère ba gën a tóo tuuti muy Modou Fall wala Ibra Ñang wala Modou Mbeng mi ci kër gi lu mu tuuti tuuti somme booba nga joxe pour ñu jox la sëram bi soo ko multiplier woon ba mu baree bari pour bëgg ñu jox la frère lu mu tuuti tuuti même bu doon liir bi soog a judd du la ko jox kon li fi nekk mooy lii suñu borom moo ko dogal ni góor ak jigéen war nañu sëy am na teraanga ji war a dox ci diggante bi rek nga def ko mais soo ko defee fàtte ko mbokk yi fàtte ko amul fu muy commencé amul fu muy yem nag amul fu muy yem gis nga boo demee ñii ngi naan rubu dinaar ñii naan achara darahim ñii boo ci njiir yi ah, boo demee ci ngiiru imam Shafi di lay wax ne la même jaaro sax des na ci may joxe des na ko joxe can alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox na ko nit can mu jàngal di ko ñetti saar yi yu gàtt yi jàngal ko sa soxna muy sa can kon lu ne mën na ci am mais amul sommit buy rëy ba fees ci bëtu jigéen na leer damay wax ni fee ma dëkk ca Thiès ña dëkk ak man ca Mbour ñu ziyaar bu baax suñu imam ba imam Cheikh Ahmed Tidiane Sine ak Baye Mor Mbaye ak njaboot gi yépp nag ak ña nekk ca jàkk ja xam nañ ni ñun jàkk ja ñuy jullee soxna suñu jox may gu jëkkam moo ca tenk 16 million jox ñu ñu tabax jàkk mbokk yi dañ ko jox première cadeau mbay gu njëkk gi ñu ko jox canam canam si la jël 16 millions ñun ak beneen jàkk mu jël 16 millions feneen joxe xanaa loolu du 32 million fu ci nekk mu joxe ni nañ ko tabaxal jàkk moom kat ci can li ñu ko jox génne na ca loolu sa mbokk yi ki jël loolu joxe ñaata lañ ko jox moom lay wax nag fii da ngay gis ko mayee 2 million 3 millions waaw man ay million laa def ci yow loolu nañ ci téey sar bi dina ci dikk mbokk nag wone cofeel gi war a dox ci diggante jëkkër ak jabar waaye yërmande it bi war a dox ak pour ñu am harmonie de mariage sëy dafa war a am harmonie couple loolu daf ci am solo kaf geeg ree geeg jàmm gi ba xol yi booloo saar bi dina ci wax insha allah ak ni ñuy moytoo loolu nu ñuy moytoo fitna di am ci mariage ak ménage it saar bi dina ko wax bu problème amee ci biir sëy ñu ngi ko war a régler nu ñuy décanter situation bi saar bi dina ci dëkk mbokk yi saar bi dina wax ci àqu diggante jëkkër ak jabar àqu jabar àq yi jëkkër am ci jabar ak àq yi jabar am ci jëkkër saar bi dina ko leeral saar bii mbokk yi dina wax nan la góor war a comporté woo ngir jàmm am ci kër gi bu problème amee nu mu koy war a lijjantee ndaw si nu mu war a comporté woo ku góor ki nu mu war a comporté woo saar bi dina ko wane it nag si bi góor am ci kaw jigéen waaye nag wane ni loolu nag loolu taxul ñu ne la jaam nga yor ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa bu mu tax kenn defee ni yow kat jaam nga yor yoroo jaam de góor nga ñu ne la yow kat kilifteefu kër gi dénk nañ la ko waaye nag loolu mooy lan ci conseil yi ngay war a joxe éducation bi ngay war a joxe sàmm gi ngay war a sàmm njaboot ga loolu lañ ca jublu te allah allahu saar bi dina ci dikk saar bi saa yu génnee ci problème mu famille yooyu dina toxu ñëw ci société bi wax rafetal biñ ci war. rafetal boobu nan la amee solo prise en charge bi ñu war a def ñenn ñi ci biir société bi yërmande gi war a dox ci nit ñi conseil yi war a jox njéggalante bi lépp saar bi dina ci indi confiance bi war a am ak maandute bi war a am muy justice équitable bi war a am saar bi dina ko indi équité dafa am solo nit dafa war a yem dafa war a yemoo dafa war a xoolit mbir mu ne la ca war a am ak nam ca war a amee saar bi dina ci dikk bu baax a baax ba société bi mën a doon société bu tegu ci lu leer a leer a leer saar bi dina ci indi bu baax wax une société très forte nan lay mel ak yan comportement moo war ñiy dëkk ca société bi pour mu mën a doon bu taxaw saar bi dina leen ko indil di soratu nisa mbokki saar bi dina bokk ci li muy leeral di ko waxit moom saar bi di soratu nisa li nga xamante ni noonu la nit ñi war a mën a dunde en paix ak ci jàmm ak nan la ñu war a préparer ba fexe ba am sécurité ba nga xamante ni dinañ aar état islamique ak réewi jullit yi ak ni ñu war a préparer woo en conséquence ba bu noon bi di ñëw fekk fi ay jullit yu am kattan jullit yu am dëgër jullit yu am doole saar bi dina la ko indi mbokk yi saar bii di suratu nisa dina indi yenn ci ay règle yoo xamante ni état islamique daf ko war a am par rapport ak ja dëkk ci réew ma waaye digganteem ak yeneen réew yi aussi yan doxalin la ñu war a doxalin incha allah saar bi dina ko indi mbokk yi saar bi dina ñëw ci wàllu jihad yi nga xamante ni war nañ ko xeex ñi nga xamante ne ay naafiq lañ hypocrite baaxul ci kër baaxul ci àll naafiq baaxul saar bi dina wax nan lañ leen war a dénoncer nan leen war a war a combattre naafiq ba mu baax a baax ndax kat ñoom nit lañ ñoo xam ni baaxuñu te ku leen ba ba ñu màgg ci dëkk dina jur ay fitna yu baree baree baree baree bari ak pexe yi nga xamante ni ñoom doon nañ ko def yëpp ak danger bi nekk ci ñoom saar bi incha allahu dina la ko leeral comme ni lay waxee it ci waa ahlul kitaab danger bi nekk ci ñoom particulièrement les juifs muy yahud yi seenu caay-caay seenu pexe kuuba yi nu doon def yonent yi ñaaw teef yi ñu def bari na ci loo xam ne saar bi dina la ko leeral di suratu nisa mbokk yi saar bii di suratu nisa saa yu demee bay jeexal dina la indil lenn ci li nasaraan yi doon def ak yenn façon jàpp bi ñu jàpp ay saa dem ba yenn saay sax ñu ci ëppal ba koy jox garaatu yàlla ba indi sax lu ñuy wax tasliis ñetti yàlla yi loolu lépp saar bi dina la wax ni loolu lislaam gërëmu ko te it diina àndu ci loolu saar bi dina la ko leeral bu baax ba ñu moytu ko sar bi dina leen indiwaat rappeler leen à l'ordre ba ñu xam fi ñu war a taxaw xam nañ fa war a taxawee xam nan la ñu war a doxalee sar bi incha allahu dina ci dikk bu baax indi lu ñu wax aqidatu tawxid defar pas-pasu doomu aadama bu jullit bi am pas-pas bu wér pas-pas bu wóor pas-pas bu am solo boo xamante ni du déranger wu du soppeeku saar bii di suratu nisa dina la ko indil saa yu demee balay wax ni wala taqulu salaasatun intahaw xayrun lakum innama allahu ilahun waxid saar bi dina la leeralal bu baax taxawaay boobu ñu war a tax suwar bi mbokk yi ñu ngi koy wax suratu nisa mu ni ndax bari na atte yu aju ci jigéen yoo xam ne ñëw na ci saar bi tolluwaay boo xamante ni saar bi indi na ko ci loolu tolluwaay boo xamante ni doo ko fekk ci beneen saar bu ñu la ko indile comme ni la ko saar bi indile doo ko fekk feneen moo tax nee na ñu koy wax suuratu nisaa al kubra saaru jigéen bu mag bi li ko waral mooy suuratu talaaq dañ koy wax moom it suuratu nisaa waaye moom ñu ngi koy wax as suxra saaru jigéen bu ndaw bi ndax moom it dafa bari lu muy wax ci jigéen surtout ci fase yaa ayyuha alladina yaa ayyuha iza talaqtum nisaa fa talliquhunna li iddatihinna waxsul idda ak lépp lu aju ci wàllu passé saar boobu da cay yaatal bu baax a baax donte la yeneen saar yi dikk na ci ndax xam nga ni dégg nga ko ci baqara dégg nga ko it ci yeneeni saar kon biit ñu bàyyi ci xel bu baax ni dina ko indi kon moo tax ñu tuddee ko suratu nisa mbokki jullit yi lii mooy contenu saar bi di suuratu nisaa incha allahu indi nañ leen kon grands axes yi nekk ci saar bi ba kenn ku ci nekk di ci bàyyi xel ba bu ñu ñëwee ci tafsir bi luñ ci yegg si nga man ni ah fii kat leeraloon nañ ca ndortele ni dina ci dikk yàlla nañ yàlla defal nag ni ñu songee woon fatiha bu yegg jël baqara mu yegg jël ali imran mu yegg yàlla nañu yeggelewaat suratu nisaa ñun ñëpp ñu ànd ko fekke ak tal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu waxtu waa ngay jeex waaye ñu ziyaar nag bu baax a baax a baax a baax tabarakallahu suñuy sëriñ tabarakallahu sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñu koy wax sëriñ Mbaye Mansour Ndiol Fouta wallahi ñu ngi mu ngi ñuy feeñalal ci gise bu ñu gisee ni mu ngi ànd ak ñun ci tafsir bi waaye nee na ñu wax kilifay kër gi ni rafetlu na bu baax programme mu diine bi nga xamante ni mu ngi dox fii ci 2STV kon kilifa yi di El ak soxna Mariam ak njaboot gi fi nekk yépp nag ñu ngi leen di wax ci kaddu sëriñ kër si mën Abdoul Aziz ni mu ngi ànd ak yéen ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ci de stv yi ci émission diine yi ni mu fiy doxee waaye tabarakallahu ziyaar yi suñu sëriñ maam Alfahim mu alxaaji Abdul Aziz si di imam alfasi moom it ñu ngi ju jotal kàddu ci suñu kaddu rek Mouhamadul Munir di wax ni mu ngi ànd ak ñun ci tafsir bi saa yu xëyee moom ñun ñoo koy ànd ñu ngi koy ziare waaye ziare bu baax a baax a baax suñu mbokk Mouhamadul Mansour Ndiaye nekk ca Tiwaawan ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñoom it déplacé wu nañ ñëw ba kër gi di wax ni ñu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ak ci tafsirul Quran bi yàlla leen yàlla defal dégg yàlla leen yàlla defal topp ñoom ñëpp yàlla leen yàlla boole ci min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh